bisimila dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenikaay yi doxi enquête quotidien bi xëy dikkaat ci lu ñeel wàllum dette bu réew bu Sénégal di koppar yi nga xam te ñu ngi koy àbb ca bitim réew mu ne recours aux eurobonds a dit élevé la spirale de la dette maanaam li nga xam te noonu la réewum Sénégal daal di àbbe jamono ji ay koppar ngir doxal ay politique jéggi na dayoo lool boo yëree biir journal bi di enquête quotidien mu ne 450 milliards de francs CFA xam ñoo kilifa yi daal ñu ngi koy ndamoo jamono ji professeur xam-xamam màcc ci wàllum koom mu ne nag l'émission des eurobonds du Sénégal mu ne loolee privé la professeur Abdou Kane nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar mu euh, situation bu Sénégal nag dafa daal di tiital ñi nga xam te ñoom ñoo di investisseurs yi Ibrahima Bey moom mu daal xam ne ci journal L'Enquête yéenikaay ba léegi mu ne avec un taux de plus de 70 pour et un risque pays élevé mu ne difficile d'avoir des avocat Ousmane Sonko ñëw ci Ndakaaru doon fi animé benn conférence la nga xamante ni xam ne na ko ci fitna gi amoon ci réewum Sénégal diggante mars jàpp juin 2023 la ñu war a taxawoo collectif des victimes du régime du président Macky Sall nag ñoom la nga xam te moom la ñuy sàkku jamono jile mooy ñu daal ko amal mandat d'arrêt international daal ko indiwaat ci réewum Sénégal ngir ko juger noonu la ko avocat bi xam ne ci biir enquête quotidien le quotidien yéeni nañu xam te noonee la ñu yore réewum Sénégal mu ne note de lecture de Tine ki nga xam te moom moo di Aliou Tine daal la nga xam te ni xam ne na ko jamono jële daal muy réewum Sénégal fi mu toll nii la nga xam te ñu ngi koy gis mooy benn état pastefien moom moo commencé taxaw ci biir réewum Sénégal kii di Ousmane Sonko nag mu ne moom dafa amee surcharge de légitimité kii di Diomaye Faye Aliou ba léegi ne moom nag dafa ameel bor askanu Sénégal boo xam te ni boru politique la war na ko fay noonee la ko xam ne le témoin quotidien nañu xeex lu jëm ci wàllum drogue bi près de deux tonnes valeur de cent cinquante milliards de francs CFA mi ci diggante juróom benn weer ñi nga xam ñoo di douane boobu Sénégal nag fi toll nii daanaka ñoom ñooy champion d'Afrique ci jàpp lu jëm ci wàllum drogue noonu la ko le témoin quotidien xamle L'As quotidien ne ñu nag Karim Wade Amadou Ba kiif ñoom ñooy ñi nga xamante ni am nañ ay profil yu yees ngir gën a dëggal seen bopp ci wàllum politique bokk ci ñi nga xam te ñoom ñooy dagaan baatu askan bi ngir doon njiitu réew bu Sénégal waaye nag amul kenn ci koo xamante ne ni dëggal nga sa bopp désacraliser conférence ba nga xam te doon na ko amal ca CICES daal ñi nga xam ni teew nañ fa bëriwut noonu la ko laas quotidien xamle ci biir journalu tayam bi le Le Soleil yéeni kaay xëy dikkaat ci li nga xam te moom moo di zone des Niayes daal fi mu toll nii boo mooy tool ci gasax la nar a nag ndax na nga xam te noonu lañ fay exploité meññe fi bàyyi ci biir suuf si waaye tamit ñàkk urbanisation bu jaar yoon ak ndox ma nga xamante manqué na fa tax xëy dikkaat ci li nga xam te am na ca Kër Moussa ci wàllum occupation foncière illégale mu ne le gouverneur de la région de Thiès Oumar Mamadou Baldé viole les instructions du président Diomaye et provoque l'embrassement entre QVS et SNV noonu la ko journal bi di yor yor quotidien xamle daal ni ki nga xam te moom moo di nga xam te njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar daal di indi fitna xam ne waaye tamit lu jëm ci wàllum presse nationale sénégalaise diggante 2021 la presse sous Macky passé à la loupe par Reporters sans frontières mu ne bilan presse bu Sénégal ci nguurug Macky Sall toll na ci 34 attaques 60 interpellations waaye tamit 77 entraves au travail des journalistes noonu ko yor yor xamle l'éveil quotidien xëy ci lu ñeel wàllum activité de sondage des ICS mu les exigences des populations impactées ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ca wetu usine boobu leen la nga xam ndax jafe-jafe yi nga xam te usine bi mu ngi koy teg xam le nañ ko ci biir journal l'éveil quotidien journal bi tamit xëy joxaat code ki nga xam te moo di Moundiaye Cissé bokk ci ONG 3D mu ne sur 326 partis politiques 70 n'ont pas d'adresse connue réewum Sénégal am mooy seen màkkaan amuñu adresse boo xamante ni mënees na leen fa fekk noonee la ko Moundiaye Cissé bu ONG 3D xamlee ci biir l'éveil quotidien direct news nañu nag lu ñeel Mati xam te ñoom ñoo di waa présidence ña nekk ci biir palais de la république ak ña nekk ca primature nag ku nekk xoolaat nga li nga xam te moom moo nekk nag sa taxawaay ci lu ñeel wàllum service de l'état yi noonee ko direct news xamle révélation quotidien nañu nag médiation pénale de Adama Faye le frère de Marème Faye casque cent cinq millions téeméeri millions toftal juróom moom la génn nag teg ko ci taabal ngir ñu daal ko mayu ko gannaaw Libération Quotidien na ci cent cinq millions de dollars yi nga xam te nguurug Sénégal daal dina koy yëkkati di ab boo xam dañ ko lebal ngir mu doxal wàllum politique am la ko journal bi xam ne réew mi quotidien nañu endogénisation de l'économie sénégalaise mu ne le MEDES indique le chemin mouvement des entreprises du Sénégal wane na yoon wi nga xamante ni la nguur gi war a jaar ba lu jëm ci wàllum koom gën a ñoŋ ci biir réew mi waaye tamit ñu gën jamono ji mooy nag daal di soppi turu euh, Palace de France boobee nga xam te nekk ci digg xolu Thiès daal koy duppee benn doomu Thiès noonee la ko xamle ci biir journal Le Point boobule projet a yanjal xarkana mu Thiès waaye euh, la ko Babacar Diop maire bu ci biir gi nga xamante avocat Ousmane Sonko bi Juan Branco amal na ci Dakar mu Juan Branco brandi bâton de la punition li nga xam te bëgg na ko jamono ji mooy nga xam ne andi nañu ay fitna ci biir réewum Sénégal diggante 2021 jàpp 2023 ñoom yoon daal di dal ci seen kaw noonu la ko Juan Branco xam ne ci biir Le Regard yéenikaay journal bi tamit dikkaat na ci coow dox ci diggante Cheikh Bara Ndiaye ak Thérèse Faye mu ne nag dans les de l'interrogatoire de Cheikh Bara Ndiaye à la la nga xamante proximité accessibilité révision de la doctrine formation lutte contre la délinquance le projet du DGPN direction générale de la police nationale la nga xam ti moo nekk gis-gisam ak na nga xam noonu la bëgg a tàggate wooy takk der yu yees yi xamle nañ ko ci biir journal bii di l'info quotidien l'évidence quotidien moom nag daal di xëy joxaat kàddu ki nga xamante moom moo di Mbagnick Diop nekk directeur général bu mouvement des entreprises du Sénégal la nga xamante moom nag bëgg na ñu daal di koy doxalee waaye tamit xoolaat ko ngir sunu croissance gën a ñoŋ sunu wàllum koom gën a tegu biir journal l'évidence quotidien l'évidence quotidien dikkaat ci jongante bi nga xam ne dox na ci diggante réew bu Sénégal ak RDC Congo mu ne nag boobu lépp jongante dañoo ndar match ba daal match nul la dara dara baaxu ca ci sunu gaynde yi mu ne nag boobu lépp match daal mooy match bu njëkk jëwrin ju yees ji yor lu jëm ci wàllum tàggat yaram mu ne nag boobu lépp jongante daal porté wu ko chance Aliou Cissé tamit gën ay jafe-jafem ci wàllum tàggat gaynde réewum Sénégal quotidien xëy nag defub l'enquête ci li nga xam te moom moo nekk xale yi ci réewum Sénégal mu ne plus de cinquante pour cent des enfants sont pauvres xale yi nga xam te ñoo nekk ci njaboot yoo xamante ni góor moo ko jiite nag téeméer boo ci jël lu juróom fukk ak ñett yëpp ñoom daanaka dañoo ndóol ñi nga xam te ni nag ñoom ñoo nekk ci njaboot yoo xam ne ni jigéen moo ko yor téeméer boo ci jël ñeen fukk ya ñoom ñoo ca ndóol noonu la ko lii quotidien daal di xam te moom en place gannaaw ba nga xam ti jóge nañ ci fi mu toll nii ca la mooy nguuruk Pastef noonu la ko xamle ah, ci biir journal tribune yéeni kaay l'observateur yéeni kaay xëy dikkaat ci lu ñeel nag wàllum projet de am ñu jóg nag loo xam ti ñeel na wàllum Sénébar ñu daal di koy dépénaliser ci biir réewum Sénégal ki nga xam te moo di Assane Seck président nag la sanction pécuniaire est une tendance mondiale fexe nag ba képp koo xamante jàpp nañ la nga jaay wàllum Sénébar waaye rawatina na li nga xam te moom moo di yàmba ñu fexe nag ba daan la ci wàllum koppar daan yu méttee métti Mame Makhtar Gueye mu ne nag un pas dangereux vers la légalisation de la consommation di yàmba jéego bu jéggi dayoo la nag ngir ñu jëm ci lépp loo xam te ñeel na légaliser tux yàmba ci biir réewum Sénégal te loolee Mame Makhtar Gueye gis ni lu jaaduwul la waaye nag commissaire Cheikhna Keita mu ne lu ni mel nag daanaka dina gën a yokk wàllum mbuuxum ak ger ci biir réewum Sénégal ci biir journal L'Observateur yéeni kaay ba léegi Abdou Mbow président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di fa xamle nekk mu ne il y a une cassure entre les